di leen ndokkeel itam ci xew-xew yi nga xam ne moo fi jaar yépp di ñaanit sëriñ Sidi Moxtaar Mbàkke suñ borom yàggal ko fi suñ kanam ak jëwriñam tedd ji sëriñ Mahamadul Muntaxa Mbàkke mu mel na li liñ tàmbalee waxtaan wi mu di njàngam xasida mi ak leeral yi nga xam ne moo ci topp te waaye sëriñ doon ko leeral kon mel nañ loo rek mooy jubloog jataay bi lim wax ci siñ sii di maxtaar it kenn ku nekk ci noonu mën nga ko seere ndax lim wax ne mu jàddit la loolu ku seetluwaat diggante ñaari at yi yeesal yi nga xam ne def na ko ci yoon wi loolu day wane rekk ne li sëriñ bi ñaanan ci mat Matlabul Fawzayni kon feeñaan na ci moom mooy wal du doxal muslih fi yeddi jooju eh, li ci mujj lu mën a seera rek muy li jëm ci yokk jumaa ji muy ñaari sooro liñ ci war a dolli mu nekk juróom-ñaar te kenn xam ne xam ne juróom-ñaar taxawaay bi mu am ci islaam ndax asamaani juróom-ñaar bis yi juróom-ñaar soo xool itam xalifa yi wutu sëriñ bi boo ci boolee ñaari set yi mu juróom-ñaar soo ko doon topp lu bari man nga ko ci indi kon loolu lépp xikmaay suñu boroom la te feeñ na ci moom. jumaay ji ci ndakaaru kenn ku ne xam ne wax ni ñu ko waxee ci nësëri sëriñ bi la bokkoon te mel na ni juróom benn xalifa jaar na fi waaye suñu boroom la ko yàlla tuddee mu tàmbale ko ci ayam loolu itam ba tey dafay mel ni ci dëxëñi sëñ Tuubaa la bokk. yeesalaat gi ci topp muy bërki dem rek yaakaar naa ku déglu rajo yi muy lim wax ne. mi ngi yeesalaat li jëm ci wàllu tool yi ndax kenn ku ne xam ne ne yoonu murit cosaanam mooy bay sëriñ bi itam bu doon ne am na métier mën na ne lool moo doon métier ndax ku dem ci ay mbindam sax ñaar di nga ci gudd mu koy wax mu koy wax dëkk cosaan itam mu joxe waa ndigal ñu yeesal ko ndax da cee bari dëkk yoo xam ne ñu ko Sëñ Abdou Lahad daa waxee eh, kenn ku ne fa nga nekk sëriñ bi moo la digg lan nga nekk fa te sëriñ bi lu mu def am na lu tax mu def ko ndax ñëpp daje benn barab ragal naa ne sens eh, bi mën naa des waaye kenn ku ne bu nekkee fi barab ñuy taxan di indi fi nga xam ni tey mooy fi taal bu mag bi muy Tuubaa yaakaar naa yu bari dina gën a jàppandi kon loolu itam sëñ bi yeesalaat na ko wax na kenn ku ne nga delaat sa dëkk cosaan nga yeesalaat ko yeesalaat mbay mi kon ragal naa ne eh, loolu lépp day wane ne rek sëñ Tuubaa fu mu xas a joxoñ moom foofa du fay loolu lépp nag soo gisee ñu koy fàttali mooy mbir boo ca bokkee boo xamul lépp it war nga caa mën a xam lu bari kon waxtu wuñ déggeeti na sëriñ bi yëkkati na kàddoom bala noo amate jàmm nan xam li sëriñ bi wax ndax réewi jàmbur yi kat ñu nekk lu waa bu fi génn bala noo am jàmm dina xam nu mu tëdd ak lu ko tax a jóg te loolu sayir dong la kon ki nga xam ne nag moo yor suñu lépp kon ay waxam waxtu wu ne war nañ koy nimiku di ko toppatoo wax dëgg yàlla sëriñ Sidi Moxtaar lim jëf ku ne mën nga cee teg baaram ndax moom ay milliards rek nga dégg lépp lu muy waxit day waaye wax na joxe naa nangam ma noppi door laaj taalibe yi lu ca jëm kon loolu lépp nag ak sant yàlla la loolu lañ bëgg na ubbee waxtaan wi di jéggulu ñëpp itam di ñaan itam suñu borom defal nu ci rek ak dégg ak topp def ñu dëgg-dëgg ay taalibe mu mel ni kon ndigal loolu kenn ku nekk ci nun na nga ci gën a taxawaat ñi mën a bay ñu bay ñi mën a baylu ñu baylu ndax mbay dafa am solo ba Seydina Ibrahima gis ngeen ko taxawaay bi am ci islaam te bu njëkk sa mag ñi bu ruuj ma saa ñëw ku tudd Ibrahima lañuy wax ne da ngay dem pour nga jëkk a bay ca tool ya ngir barkeeloog Seydina Ibrahima ndax ni mu fonki woon mbay suñu dellee ci mbindam sëriñ ñu itam gis ngeen ñaar day dem na tudd na ko ndax am na fu wax na wajjal li ahli shar'i wa tijaara iaalatan aw bu busaara foofu dafa site bay mu ne ñi nga xam ne bii dañuy bay ahlu shar'i yàlla nga suñu borom defal leen ak tonu door indi ak tijaara mooy commerce ndax commerce itam dafa barkeel ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam da cee jaaram yooyu yëpp nag Sëñ Tuubaa daraam ni fi mu ne lépp mi ngi ci xasida yi da ci am bayit yoo xam ne nag mën nga koy jàng ñaari te doo xam li mu firi waaye bayit woo Sëñ Saaliw ci boppam moo ko cité woon am daayira yi fa demal mu bind ko jox leen ko soo ko xoolee ci diwaan yi siñ siñ sant jeng bind yaakaar naa bu dul juróom-ñaareel bi yaakaar naa boo ko xoolee danga ca gis muy wajjal ahli shari wa tijaara iaanatan aw yaxtil bushar boobu kon loolu lépp nag mooy wane ne Sëriñ Tuubaa daraam nii dut mu mel ni kon e, liñ fi dajale tey muy li nga xam ne waxtu wu diñ koy def muy weer wu ne ñu jàpp ci benn dimanche di ci daje di ci waxtaan ci Sëriñ Tuubaa di ci yeesal itam sunu taalibe waaye itam di ci fàttalente liñ bokk loolu mu mel ni bi ñu ko tàmbalee léegi ay at la waaye sëñ bi defal nañ ci tawfeex wax dëgg yàlla mën nal ne eh, fi mu ne ñëpp maase nañ ci di ko def muy sëñ bas ci boppam moo koy jiite muy ay wàccaay yoo xam ne diñ koy def ci àddina bépp loolu itam ak sant la kon nag ku nekk ci mbir di ca dox ba suñ borom wuy sii la ci noonu kon war nga ko gën a jàppaat kon loolu ñëpp kenn ku ne na nga xam ne am nga cib taxawaay bu kenn desen sax na jàpp ne war na koo def ndax jëmmi mbooloo mi du ci am solo waaye jëmmi rek e, yeesal barab bi ak waxtaan te yàlla tax loolu moo ci am solo mu mel ni tomb tey bi e, Baye Serigne junjoon na ko keroog muy waxtaan wi ñu fi doon def tam indi woon li jëm ci wàllu jikko muy xusnul xuluq moo taxante ñu bëgg suñu waxtaan e, ñu tënku ko ci jikko yu rafet ngir gis na ne liñ boole muy Serigne Touba dafa fonkoon jikko yu rafet waaye loolu itam buñ delloo ci alxuraan dinañ gis ne waxtu wu ne suñ borom daf ci jàngale ndax buñ delloo ci alayhi salaatu salaam nga xam ne mooy sun reyukaay bi ko suñ borom di tagg taggu ko ci ab juddu taggu ko ci ab taar waaye doo ko ne wa innaka lala xuluxun azimin kon ci ay jikko la ko tagg jikko yooyu mu ko tagg nag moo tax ñu bëgg a waxtaanaat suñ biir am ci yoo xam ne dañ koy jëliwaat ci mbindam sëriñ bi ndax buñ la nee jikko rek jikko ju baax war ngaa laaj lan mooy jikko ju baax ak lan mooy safaan ba ñaara nag lépp lu la tuddal ci lu baax rek safaan ba mooy la nga xam ne bi moom la war a moytandu ko ba tey buñ delloo ci alxuraan da gis fi boroom di wax naa bi idfa' billati ahsan fa yusallisi baynaka wa baynahu adawa kanooxu walin xamim muy nit ki nay fexe ba jikkawoo jikkoy rafet am noon sax ak noonoo bu doxee sa diggante ak nit na nga fexe ba yow lépp luy luy ñaaw bu mu jóge ci yow waaye lépp luy rafetam nanga ko joxale sa diggante ak moom ndax nit ki saa yu yëkkatee aw ay wala mu yëkkati li ñaaw jëme ko ci yow yow boo rafetalee bu yàggee moom dalay fekk si fi mu ne bu fekkee ne nit ki sax saa yoo koy nuyu jox ko ñaari loxo bu yàggee tuut moom bu lay nuyoo sax ñaari loxo la lay jox benn borom xam-xam it daana wax ne saa yu nit ki taalee almet brin almet sànni ki sa bunt kër bu fekku dara lu taq day ngay fi sawara sa day fay waaye bu fa dekkee lu taq rek loolu mooy waral mu tàkk takk moo tax nit ki bu feexee ba moom na yéene ñëpp jàmm day na gàllaaj moom waxtu woo yéene ñëpp jàmm rek mën na doy na galaaj keneen ku la yéene leen itam xay na day sonn rek waaye du la dal kon loolu suñ boroom digle nag kenn ku nekk ci noonu war na ci gën a góorgóorlu ba tey suñu borom itam mi ngi fàttali jaam ñi di wax ne wa saari'u ila maxfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawatu l ardi uiddat lil muttaqina allazina yunfiquna fi sarai wa darai wa kaasimin xays wal aafina anin naas muy képp koo xam ne bëgg nga ak njégal bëgg nga itam ëllëg nga dëkk ci àjjan ji nga xam ne sunu borom wax na ne moo ëpp asamaan ak suuf ne ñooñ day nin ko waajal mooy ñi nga xam ne dinoo gëm yàlla tey def lu baax di dundale seen alal ci jamono ju neex ak jamono ju naqari waaye itam ñi nga xam ne itam boo leen tooñee soo jàkkaar ak ñoom ñu nëbbale sa mer ba lenn luy feeñal war na ne kii de lim ma def feeñ na ci man loolu itam bokk na ci jikko ya nga xam ne nit ku baax war na ko mën a jikko woo nit ki war naa man di nëbb meram war naa man itam képp ku ko tooñ mu jéggal ko waaye itam mu bañ di tooñ bokk na ci itam ñi nga xam ne itam bu nit ñi bu la nit tooñee nga jéggal ko ndax yonent bi sallallahu ba muy jàngale dafa wax ne képp ku la tooñ nanga ko jéggal képp ku la dog na nga ko jokk képp ku la xañ nanga ko may loolu nag ay jikko yoo xam ne yu jafe la ci jamono jii ndax sama classe gépp eh, ku baax ci ñoom ñu baax ci yow rek lañuy ñuy doxee waaye du noonu da seet ki nga jàpp ne sa xëy na jublu la yow nga gën ko jublu ki la tooñ nga jéggal ko ki xaj nga di ko may te loolu itam mooy jikko yi nga xam ne moom lan suñu boroom digal moo tax suñu boroom ne képp kuy jéggale daf lay bëgg waaye képp kuy rafetalam di jëm ci nit ñi sun borom da lay bëgg kon nag jikko yooyu nga xam ne buñ delloo ci alxuraan waxtu wu ne mi ngi ñu koy sax muy di jéggale te yàlla tax di baale te yàlla tax di def lu baax te yàlla tax ndax wax na ne Sëriñ Tuubaa daana wax ne moom day dafa xam li ci nu tooñ la nga jéggale ndax diñ ko tooñ mu jéggale mu gis la ko ci yàlla fayal nee na moo tax képp ko aji ci moom mi ngi lay diggal nga yoru jikk jooju nee na waxtu woo xamee nag doo tooñ te ku la tooñ nga jéggal ko yaa ngi ci néeg buñ sange nee na waxtu wa tàmbalee nag di fayu yaa ngi ubbi bunt kon li yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxan ne eh, jéggale dafa bokk ci jukkoy rafet yi sëñ Abdou Lahat im daana wax ne képp kuy tooñ du mucc waaye kuy fay tooñ doo noppalu kon suñ jamono ji kenn ku ne xam ne ne kuy tooñ moom du mucc waaye kuy fay tooñ doo noppalu ndax waxtu ne yaa nga gis lu tax ngay war a wax waxtu ne yaa ngi gis lu tax nga mën a fayu waaye loolu lépp nag boo jàppee li sëñ Tuubaa wax ne moom duñ koo tooñal mu jéggale sun borom fayul ko moo tax ku àjju ci moom dalay diggal ngay jéggale ndax kenn ku ne xam ne ne tubaab yi fa tooñ tàmbalee ba fa mu yem moom lañ def ak sëñ bi fekk ko sam réew fekk ko say taalibe fekk sa njaboot jël ko yóbbu ci àll bi fitne ju ne nga teg ko ba mu ñëwee lu mu wax afootu anil arda yi loolu nag ñun eggagun foofu bari na ci sax ay wax yoo xam ne da ngay dégg rek ñu ne gaa yi ne nàngam waaye yow déggoo ko sam nopp te gannaaw yow li ci li ci ëpp sax buñ koy wax sa ginnaaw lañ koy wax loolu war nañ koo mën a muñ donte sax kii nag moom dina ko doon jëflante ak moom booleel ak gaynde dugal la ci pour eh, dugal la ci am néeg yóbbu la juróom-ñetti at ci manqué tuuti yóbbu la fële juróomi at maanaam loolu lépp mu ay jëf yoo xam ne da nga teg loxo ba noppi nga ne jéggal naa ki ma ko doon def sëñ bi foofu foofu ak mbaax mën a yem kooku nag ku bokk ci moom war na noo mën a gën a jéggalante rawante ñi nga xam ne dinoo bokk sëñ Tuubaa bokk lu mënta séddoo kon loolu itam war na kenn ku nekk ci nun nga gën cee taxaw ba tey ci biir loolu suñ delloo ci di gis ne yonente bi salaay salaam bi mu ñëwee dafa wax ni bu istu lu utammima makaarimal axlaq sun borom dama yebal ma ñëw ngir mottali jukko yu rafet kon mel ni jukko yu rafet amal na fi waaye dafa manqué wan li ci manqué lépp nag bi ngeen ji mbindeef salaay ñëwee doo ko mottali ba tey bu ñu delloo ci xaddis dangay gis yonente bi wax ni maa min shay'in fil misaani asqal min xusnil xuluq ëllëg bu ñu demee yowmal bay peese jëfi ñu ne te balaa si yamal xiyaam de amul benn jëf bu fa gën a diis jikko ji rafet kon mooy lépp loo xam ne teg ko ci balaas boo tegee jikko ji rafet mu wat ko bu deel wax ni itam al birru xusnul xuluq bu la laajan lan moo di ak mbaax dag naa mooy jikkoy rafet nit ki saa yu nu waxee ne jikkoom rafet na rek mën na ne léppam rafet na waaye saa yu nu waxee ne jikkoom ñaaw na daanaka mënatu ko tuddal lu nit ñi gis moo tax mu ne al birru xusnul xuluq yónnente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ba tey ne akmalul mu'mini imaanan ahsanuhum axlaaqan ne na ki gën a mat ak ngëm ci jullit mooy ki ci gën a rafet jikko ba tey wax na ne euh, laaj nañ na ko jën jëf moo gën ci jëf yi mu ne jëf jikko ji rafet loolu lépp nag liñ ci mën a dégg mooy jikko yi rafet mooy li nga xam ne moom lañ war a jàng moom lañ war a jàngale itam laaj nañ ko itam ne ko ban jikko wala jan jëf moo gën a gaaw a dugal nit ki àjj na mu ne jikkoy rafet loolu lépp kon day wane na rek jikko ja rafet lépp mu ngi ci biir ngir bañu guddal dinay indi ay bayit rekk ci njàngaleem sëriñ bi ngir bu ne jikko ja rafet dafay lëmu waaye sëriñ bi bu delloo ci nax ji daf ci bari ay njàngale yoo xam ne da koy site nangam ci la bokk nangam ci la bokk loolu nag buñ ko xamee day daal di yomb ci nun moo tax ci biir lam jëkk wax mooy waxu li si jaamala xusnal adabi yox fii jaxaalatan wa xubxa nasabin nee na bokk na ci jikkoy rafet lim mën a jural nit ki moo di képp koo xam ne yaa ngi ak jikko ji rafet yaa ngi làmboo ay teggin nee na yow des donte nit ku réer nga sax nit ku jàngun nga ku la gis day defe ne yow ku jàng nga ku la gis day yaakaar ne yow jandaara nga yaroo ku la gis day yaakaar ne yow boroom xam-xam la ndax soo yaroo noppi képp ku la gis da lay respect da lay jox ab cër da lay warmaal. nan itam jikko ji rafet dina tax nit ki donte sax da bokk ci askan goo xam ne xëy na ñu bari xamuñu ko waaye si jikko ji rafet mooy dem ba tax ñu naa diw xanaa jikko barab sàngal la bokk wala diw nangam la mel loolu lépp nag kon bokk na ci lii tax ñu daje lu mel noonu. mu mel ni sëriñ bi buñ ko laajee ne ko gannaaw jikko yu rafet yii yëpp wax nga ko limal ni ci lenn ci jikko yooyu ngir nu mën ko jikko woowu mu ne wa min ta'addubika an la tanzura xaqan li nafsika ala shakhsin tara nee bi ci jëkk moo de képp koo gis nga jàpp ne kii de moom a gën kii de maa ko war a liggéeyal waaye benn àq boo xam ne bii wala benn cërëm bu war a jóge ci moom di ñëw ci man amut xam nga loolu nit su ko defee rek ko koo gis jàpp ne kii moom a gën kii maa ko war a liggéey waaye moom waruma liggéeyal kii maa ko jox war a jox sama alal kii maa ko war a ñaqal bu fekkee yónnente maa ko war a doxal su dee lu ñuy séddale maa ko war a séddale bu dee lu ñuy liggéey maa ko war a liggéey te bu feeñ jotee mu nëbbut loolu mooy jikkoy murit xam nga murit da liggéeyal nit ak tërbiyu nit ak koo gis jàpp ne kii moom ma gën suufeel sa bopp ci kanamam loolu mooy liñ sëriñ bi jàngalan moo tax mu ne wamin ta'add bika bokk na ci say teggit an laa tansura xaqan li nafsika nga jàpp ne man mii day awma benn cër ci yàlla bu tax nit di ma màggal képp koo gis nga jàpp ne kii moo ma gën ne na soo ko defee moom di nga noppalu mun moo tax mu ne wa an tara annaka lasta mustahiq shay'an min at-ta'zim mimman yameq ne yow nga jàpp ne lenn lenn lu ñuy ci yow amut kon képp koo gis rek da jàpp ni kii maa ko war a jox ab cër kii maa ko war a sonnal kii maa ko war a liggéeyal kii maa ko war a ñaqal waaye moom waruma defal dara mun a bokkoon ba tey ci sàkku ay teggin mun a bal ixtabir min nafsikal aadaba walaatu taliban bihi asaaba nee na itam yar ak teggin waxtu wu ne da jàpp ne lii dama war rekk ma di ko def bu ci sax wut ay àndandoo moo tax wolof njaay day wax ne bu ne yar nit ki yaruta tax xam nga bu ñëpp yaroon ab yar du dara jam du feeñ waaye bala noo mën a xam ne yow yaru nga mooy nga def see ku yarut mu jëf jëfin jëfin woo xam ne jëfin ku ñàkki teggin la waaye yow nga wan ko ne man de din maa yar din maa jaareel barab yoo xam ne rus naa di fayantoog yow wala rus naa di la wax loo xam ne bii day ku ko dégg na diw wala rus ma def la loo xam ne itam ku ko dégg na nangam mu sëriñ bi tam ne ne bokk na ci li lay dimbali mooy lu baax boo ci nekkee donte sax danga nga caa wéet yow loolu bu mu la yàq la nga def moo tax mu ne bal ixtabir min nafsikal aadaba waxtu wun na nga jàpp ne moom yow daal yow da war a yaru danga ngaa yor jukko yu rafet donte nit ñi fekkuñu la sax nga xam ne dalaa war loolu lépp itam sun ko defee rek lépp luñ bëgg ci ak àndandoo suñ borom dina ko yombal ba tey sëriñ bi wax ne wakun ma an naasi jamian dahraka kama tuhib an yakunu maaka kama an yakunu maaka ne ne lépp loo bañ ku la ko fay bu koy leble moo tax mu ne wakkun ma annaasi mboolem nit ñi ñëpp na nekk ñoom jami an dahraka kama tuhibbu an yakunu maaka rek lépp loo xam ne buñ la ko defee du la neex bu ko def ab jàmbur waaye lépp loo xam ne bi buñ la ko defee mu neex la kon nanga koy def nit moo tax sëriñ bi ne euh, lépp loo bañ ku la ko fay kon bu ko leble maa ngi déglu benn bis euh, si si al oustaz Aliou Sall na ko yàlla gën a dëgëral mu dafa am ko euh, doon waajuram am na lu am lu mu doxoon seen diggante ba ak jubóo di ko feeñc mu dëkk ci këram mu ne nag mu ne lekk doom ji ne day sànni ji juróom ñu ne bi mu ko indee ba euh, ba Cees su ma juumut fa la ko bàyyi bi mu ko wanee ginnaaw baay bi woo ko na ko boo ma yemalee fii kat day mel ni kon la ma jëfan euh, lan ma fayaat ndax man ba may sànni sama baay Cees laa ko sànni woon kon yow da mooy may yóbbu ba xombal ne bi mu ko waree ginnaaw doom ji xam ne gannaaw kii da koo lebaloon baayam kon su ko lebee baayam ëllëg din ko koy fayaat kon euh, foofu dam ci doon jàngale rek gannaaw moom ba muy sànni baayam da ko indiwoon ba Cees bi bi ko doom ji sànni ci indiwaat ko Cees kon day mel ni lan ko defal lan ko fay waaye nag na ko yóbbu ba xombal wis ko waaye tam na xam ne kon bu ko indee xombol bu ëllëgee moom dina ko indi njaareem <laughs> waaw kon daal lépp loo xam ne bii bëggoo ku la ko fay bu koy leble muy kon ba tey bokk na ci ay jikko yu rafet suñ delloo ci mbindeem siñ bi li ñuy wax ne wax ne amma xamiyatun wa kasratul xadab wa xiddatun wa dayqu sajr bi taab wa hiya min axlaaqi cheytaani lain aasana al muin minhu kulla xiin mu ne bokk na ci jikko yin yi ñuy tere muy li ñuy wax gaaw a tàng wala gaaw a mer wala xol bu xat wala gaaw a ab sànje maanaam nga xam ne ñaari baat rekk soo ko waxee nga tàng jóg fii fet xataraayu mun ne loolu ci jikko yi gën a pexey seytaane bokk moom moo tax munu fahiya min axlaaqi seytaane loolu dafa bokk ci jikkoy seytaane seytaane mooy day gaaw a mer day gaaw a tàng day gaaw a jaxasoo day bu mbooloo tax sax mu mel ni moom moom moomam nit ñi loolu jikko yi jëkk yi la woon muy ceddo ya kon bu fekkee nag jikko yooyu ñoom ñoom leen yoroon kon ñi yaakaar Sëriñ Tuubaa war na fexe ba buñ ko jege fenn moo tax yonente bi sallallahu alayhi wax ne nit ki bu meree na sangu ndax mer din koo bind ci saytaane te saytaane din koo bind ci sawara te sawara ndox moo koy fay moo tax saa yu nekkee ci mbooloo soo meree sax bul waxati ndax saa yoo meree loo waxati erreur la ndax su boobaa saytaana moo lay togg naanaa waxal lii defal lii du defal su ko defee lépp loo waxati rek lu yàq lay nekk moo tax te mer mu su cee fañ mer fi mu ne saa yu coow amee bale nu ko mën rek dinaa ne nit ñi dal faaw ñu delluwaat nit ñi ci ak dal door ko mën a régler waaye coow mënoo ci régler waat coow kon ak dal ak mën a muñ daa bokk ci li nga xam ne bii sëriñ bi dañ ko doon jàngal ndax wax na ne sëriñ bi sax bi muy nekk njaareem bu masaa dox ba yem ci ki def ab safaan su ko jëkkee seen kooku du ko séen sëriñ bi doo koy nëbbut bàyyi ko ba loolu jàll mu woo mbooloo mépp ñu toog mu a nangam ak nangam ne ku koy def nangam mooy sab àtte ka defan loola dina xam ne lii mooy ab àtteem loolu lépp nag ci xeeti njàng lañ sëñ Saliou Mbacke wax na ne bu ñaar masaa am ab diggante du leen dajale ñoom ñaar ñuy wax bu mënta ñàkk kii day wax dem kay ñëw wax ndax ne na saa yoo dajalee ñaari nit ci barab ku ne wax day indi ab xulóom dégg ngeen itam ñu ne soxna jaara bi muy waxanteeg soxna Asta Njaay ba xamal na ko bëgg naa fee am ab jant doo ko ne bu ëllëgee dinaa la tontu wax ne na booba lam ko waral na tontu mi ngi ci xelam waaye dafa xam ne waxante ñaar mën naa jur mu ne ko bàyyil ba ëllëg ma tontu la sa ëllëg sa la ko doon wax ne kon dinaa fi jur loo xam ne bii dinaa fi am loo xam ne bi mooy tii ab jant muy asamaan ak suuf kon loolu bokk na ci jikko yi nga xam ne jikko yi war a jàng la léeg-léeg nit dina wax loo xam ne bokk ko tontu ca sens sax amaan day mu nuru xuloo wala da nga bàyyi ba mu dal nga wax siñ bi day yaakaar naa bu defal nangam ak nangam mooy gën mooy li bi wax ba tey ne bul wax nit ki fen nga bul ko wax waxoo dëgg bu ko wax li nga wax amul da nga ko naan ah ndax suñ defe woon nangam du gën a murite wala nga ne ah man jàppan naa bu ñu defan nàngam nga ne nga ne ko ah wala nga ne ko ah man sax de xam naa sama xam-xam jëmut ci fànn googu waaye boo giseen siñ diw de yi nga xam ne moom xëy na côté boobu moo ma ci gën a ubbiku bu yéen ci waxtaan yi buntu mën naa feeñ loolu lépp ci xëyati njàngale la sëñ bi nag ne loolu lépp nag saafara si muy gaaw a mer gaaw a tàng xol bu xat ne na loolu lii saafara mooy dawaawuhu ilmun bi am anna la fi'la la ila rabbin jalla nee na mooy nga xam ne mbir lu xew rek suñ boroom moom la xañ na nag nam koy jaaralee ci nit dangay jàpp ni kii li muy wax xañ na du ci moom waaye am na lu tax sama benn mag daana ko def ñaare buy bëggee tooñ xale yi suñ reeree ba noppi wala nuy ki wala kii bu fekkee reeram njóobeen ya su baree ay wax di wax lu ba naa fi mu ne waxatoo ginaar yi mooy wax <laughs> mooy wane na kon fi mu ne xëy na bu xëy fan nii muy waxee wala nii muy nii muy bang bangee du ni bang bangee waaye gone eh, ñaare deretam day bax saa yu reggee rek wala mu kii amu xelam dal day bari bang bang moo tax ñu ne waxtu ne nag da koy wutal lu muy feeñal ak njàmbaaram ndax soo ko wutut soo ko wutalut muy li Sëñ Saaliw daa def yóbbu la xel xom ngay bay wala mu yóbbu la njurul wala mu lay jàngaloo alxuraan wala mu lay jàngaloo xasaayit su daanaka mooy li booy def rek yëkkati weñ di fay xam nga yëkkati weñ ñu lay fay sax xam ne waaye yëkkati weñ ba noppi di fay kon xam nga mooy yow bëgg ngaa wane foo bëgg nga foo wane sa njàmbaar ndax yow lii da nga koy def ba noppi sa doole jëpp nga dig ci jeexal boole ceeg di fay ku la koy def waaw ah, benn bis ma déggee ku ne moom li muy fay yàgg na ay 300 euros 400 euros daanaka sëñ bi ci te boo ko laa laajan ci màggal gi di joxe 100 euros xam nga loolu musiba la boo ko laajoon ci jumaa ji joxe 100 euros te mën a fay 500 euros ci ci ñaari weer wala ñetti weer ci yëkkati weñ <laughs> ak yeneen ak yeneen kon loolu itam lu jàddi jàngat la te boo ko neen jumaa ji tey joxe gu ci 100 boo ko neen màggal gi joxe gu boo ko waxan leen itam joxe gu ci bërki démb itam maa ngi am ko nga xam mu ne dafa am xaritab tubaabam bu ko invité woon reer ñene ne bi ñu xéwloo ba noppi ñu ne ko yéen ñaar 200 euro ngeen di fay ma ah aussi loolu kawe na <laughs> après nga bëgg cee ñàkk 200 euros te te ma koy teg dama koy tooñ naa ko waa loo joxe gun ci jumaa ji mu a dinaa joxe xam nga yooyu yëpp ay ay feebar la yoo xam ne eh, day day gën di law xam nga mën a reer génn guddi sëñ bi nga nekk ci 200 euros te yow wóor na la téeméer la laaj ci jumaa ji joxe goo ko yooyu yëpp nag buñ ci dul waxtaan day law te te lii ñuy wax du ay lépp luñ teg bët la te day li naa liy raam ci ñag bi la jëm su doon ñoom Baay Taala ñi wala si Baay Abdou Wahab ñi xam na nañ ñoom yàlla sutural na leen ba état bi yooyu dun ko dudd waaye nag li ñuy wax wut judd yi wut judd yi buñ ci dul wax moom yu bari ci ñoom lay feeñe <laughs> waaw yooyu yëpp nag boo gisee ñu koy dugal ci waxtaan yi lu mel noonu moo tax mu ne ba tey bokk na ci li sëñ bi wax ci ba tey ci jukko yi rafet mu ne laatal tamis min bi naasi ma saturu wa ko laahu sitran an musaawik ña bokk na ci jikko yu rafet itam bul lëñtu ay bu nit ñi ndax waxtu woo lëñtoo ay bi nit ñi rekk suñ boroom mën naa wuññi sa ayib kon nit ki itam dañ koy dogal ngànt nga gis ko mu def ab safaan li Sëñ saali doon wax bin ñëwee di ko jàmbat Tuubaa ko dafa am ñu fi def ab safaan mu wax ba nopp naa ah, xam naa ne sàllaaw day Touba de ku fi def ab safaan xaj na ak ñàkk xam la waaye du jublu xam nga sëñ sëñ bi kenn mësu ko ak ñàkk xam la waaye du loo jublu nit yi da koy dogal ngant waaye bu fekkee waxtu yaa ngi lëñtu ayib nit ñi te sun borom dafay feeñal sa ayib la wax te xam nga feeñal ak sun borom bokkut ak feeñal ak doomu aadama ndax feeñal ak doomu aadama amaan na ñaar nit ngay waxtaane wala ñett waaye sun borom moom bu nemmee feeñal mbir daanaka àddina bépp ñoo koy gisandoo ndax fam koy jaarale eh, dafay doon eh, jaarale yoon bu gaaw moo tax mu ne laatal tamis mu ne oyoo bi naa si ma satru doomu aadama yi lii nëbb di ko def yow bu ko jéem a feeñal même bàkkaar bi nit di def sax di ko nëbb moo gën bi fés moo gën bi fés mu ne fa wa yaxtekul laa settiran an ma saweek ndax suñ borom na day xotti sa suuf sutura te suñ borom xam ngeen comme xotti suturaam wala yaasu billah mu ne waskur maxaasina maa fihim isaa zukiru wala taib ahadan minhum bi maa fiika ne nit ki saa yu tuddee fi yow nit la nga xam ci lu moom ci lu baax nanga ko wax la nga xam ci safaan nga bañ ko wax sama benn mbokk taalibe wax dëgg yàlla waxtu mu demee jël ci moom eh, ay bind ñaare boo toogee moom di wax ci moom nit boo waxee safaan mu noppi day toog ne ah xam naa keroog de xëy na waaye moom de ku baax la ndax bis sàngam ne mas na maa defal nangam loolu mooy kii saa yu tuddee fi nit yow la moo tax mu ne waskur na ngay tudd maxaasina maa fihim isaa zukiru saa yu tuddee fi yow nit nag ah kooku day fi gën ndax xam naa bis da gis naa ko def loo xam ne bii ku baax rek mooy jëfe noonu loolu mooy séeréer waaye waxtu woon tuddee ci ne ah xanaa di diw doon wala dégg naa nangam loolu sax moo gën a yées moom dégg naa gaa yi ne nangam gaa yi moom seeg yàgg naa gaa yi nangam rek yaa ngi yàq ndax yow même boo giseen sax war nga ko mën a suturaal te yàlla tax wala nga xam ne dafa juum waaye loolu di jikkoom moo tax mu ne la nga xam ci moom ci ak mbaax na nga ko wax la nga xam ci moom ab safaan nga bañ koo tudd moo tax mu ne waskur mahasina maa fihum isa sukkiru wala taib ahadan minhum bi maa fiika ñu ne bul ay bër kenn moo tax mu ne isaa sita an yaxya wa diinu ko saalim wa xastu ko mawfurun wa addu ko saynun lisaanaka laa taskur bihi awrata imriin fa indaka awratun walinnaas alsunun sëriñ bi na ne soo bëggee sa diina ñoŋ soo bëggee sab cër duun soo bëggee sab der ñoŋ na ngay bañitu di saw làmmeñ nit ñi ndax am nga ayib te nit ñi am na ay làmmiñ su nga li te an tax yaaw diina ko saalim saa yoo bëggee sa diina ñoŋ wa xas ka mafurun sëb cër duun wa addu ko saynun sa sab sa saw sab daritam mu ñoŋ lisaana ko laa taskur bihi awrata amri in sa làmmiñ wii ne nga fexe bu ci tudd ayib kenn kenn kenn ñu ne ko lu tax mu ne fa indaka awratun am nga ayib wali naas alsunun nit ñi itam am na ay làmmiñ kon loo xam ci nit gi rek xam na ci lu ko ëpp te li wolof njaay naa ko ëpp di bokk mënoo koo jëw loolu da ciy am fi mu ne saa yoo jàppee ne yaa gën a yeewu nit ñi wala xamal nga nit lum la xamulut ba tax nga bëgg koo attaqué yaa ngi tooñ sa bopp kon nit ki lii bokk na ci lii tax kenn du la mën a kii mooy nit ku ne nga jox ko ab cër seere ci moom lu rafet seere ci moom lu baax fun ko tudd nga tudd ci moom ay rafetal loolu soo ko defee sunu borom mën na laa suturaal sunu borom itam mën na laa dimbali mun wa in ab sarta ay naaka ayban fa xul laha fala tubsiri yaa aynu linnaas ayunun nee na sa bët sax saa yu tegee demee ba tege ci luy tere wala luy nëbb na nga wax sa bët na ko eh gëmmal ni nga amee ni nga amee bët ba mën a xool ay bi jàmbur ñi la ñeen ñi amee bët ba mën a xool sa ayib kon lii lépp rek din koo gàttal nii rek waaye bu ngeen delloo ci xasida googu sëriñ bi tudde nax ju gën na faa leer te ni ma koy leerale xañ na sëriñ bi ni muy waxee dina gën a leer waaye liñ ci bëgg jàngale rek mooy nu xam ne lépp luy jikko ji rafet suñ delloo ci mbindam sëriñ bi lenn lu ne da koy tuddal boppam xañ na nag sunu ñàkk jàng wala sunu ñàkk gëstu mu nuy dugal ci lu bari mu ne bokk na ci itam li sëriñ bi wax ne wa kullu man yakunu min akbara minal aqaaribi fa kun mu waqira wa xayrihim wa kun ma annaas jami bil xulul xasini yoxbikal badia nee na képp koo xam ne dalaa féete ak mag moo xam ci say jega ñaala la moo xam say xarit la wala sax koo xam ne bi bokku leen dara sax waaye doomu aadama la rek nee na da ngay jëflanteeg moom bi xulxil xasanin ci jukkoy rafet ñu ne ko loolu soo ko defee lu mu lay jural mën a yoxbikal badia suñu borom ci boppam moo lay bëgg xam nga jëlee leen nit ñi waaye yàlla ci boppam soo dee jëflanteeg nit ñi ci jëflante wu rafet sun borom moo lay bëgg sëñ Saliou daana wax ne sun borom moo bind mindee fi waaye yërmaande la leen yore kenn ku ne xam ne ne yàlla bu doon topp ci jëf kon kenn du fi des waaye nag yër danoo yore ci yërmaande moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne sun borom dafa wax ne bi mu bindee mbindee fi yërmaaneem dafa jiitu ci ñoom ci meram kon yërmande yàlla daa jiitu ci nun ba noppi ci meram moo tax lu mën di def suñu borom mën noo jéggal mën na noo baar sëñ bi nag moo tax mu ne soo dee jëflanteeg nit ñi jëflante wu rafet suñu borom ci boppam mi sàkk bindee fi moom moo lay bëgg mu ne waxasinul xulqa bi tarax bi wa bi tawaddudi ilayhim yox ba bi ne bokk na ci itam jikko yi mooy ngay bëgg-bëgglu nit ñi ci di toroxlu ci seen kanam ndax nit ki wax tuune bu fekkee saa yoo gisee nit ki di ko wan ci moom cofeel di ko nuyoo ñaari loxo di ko laaj ba ci tiim ne bañ nan sax ci ni ko seen bi wax ci téere yi nit ki nga koy nuyu rek jox ko loxo ba noppi boole woo ci ay wax nit ki da nga ko war a nuyu ba noppi nga wax na ko salaamaaleykum na nga ànd waa kër gi ndax loo xam ne dina wane dina feeñal ak ak ak cofeel si diggante loolu lépp liñ ci bëgg rek mooy ñuy gën di ànd di gën di dimbalante bokk na ci jukkoy rafetam sëñ bi wax ne wala yenil xawlal kulli naasi fi nuha min cheymil ak yaasi nee say wax itam waxtu ne na koy nooyal ci kanam nit ñi ndax loolu dafa bokk ci jikkooy boroom xel yi mu ne fax baroo bi ànd nisful aqli te waddu li naasi ansil li sëriñ bi ne ne genn wàll xel xel buñ ko xaajan ci digg bi genn wàll gi nee na mooy bëgg-bëggul nit ñi kon fexe ba koo gis nga feeñal ci moom ak cofeel loolu itam bokk na ci jikko yi nga xam ne sëriñ bi da koy digle mu ne wamin saadatil fata an la wamin saadatil fata xay xasat an la yarudduhu fa aadu si rasat nee na bokk na ci cexe ak texe cem si mu fexe ba waxtu wu bu demee fi nit ñu baax ñi duñ ko wan ne yow mii day bëgguñu la mooy nga fexe ba yore jikko yoo xam ne saa yoo taseeg nit ku baax bu la gisee rek ngay ñëw dina la bëgg su jaxasoo mu gën laa bëgg lool itam bokk nañ ci jikko yi nga xam ne sëriñ bi da koy jàngale bokk nañ ci jikko yi jàng itam mu wax ne laasim dawaam xubbul xusnil xalq wàccaane bana daxaru suwal xuluq na ngay moytu di jikko woo yoo xam ne du jikko rafet waaye na ngay fexe itam di jikko woo jikko yoo xam ne jikko yu bëgg la mu ne xusnul xuluq sabilul xayri wa ànd suwal xuluq sabilul dayri sëriñ bi nee ne jikko ji rafet mooy yoon wi nga xam ne ku ci soobu daf lay xëcc di la jëme lu baax waaye jikko yi ñaaw itam mooy yoon wi nga xam ne ku ci sóobu da lay xëcc di la jëme ci ay loro mu ne ñëw na ci addis yonente bi sallallahu alayhi wax ne zimaamu rahmatillahi fi bi saahibihi wa simaamu yeddil malik wal maliku yajruhu ilal xayri wal xayru yajruhu ilal janna mu ne jikko ji rafet am nos la boo xam ne nosob yërmande suñu borom la ñu jël ko dugal ko ci bakkanu doomu aadama bi nee na nos boobu nag malaaka moo koy xëcc di ko diri du ko jëmale ci àjjana mun a safaan ba itam am nos la boo xam ne saytaara moo koy dëri di ko xëcc di ko jëmale ci sawara wal iyaasu billaahi kon nu xam ne jikko jarafet mooy yoon wi nga xam ne ku ci soobu dina la xëcc jëmale la àjjana mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne itam inna haasa diini huwa lasi ardaytuhu li nafsi wala islihu illa xuslataani asaqa wa xusnul xuluq fakrimuhu bihima ma sahabtumu mu ne yonte bi salaam sam ne jikko ju rafet day mu ne diine jii de man moom laa ñu tànn muy diine islaam te képp koo xam ne jikko boo nga ko dina la xëcc ba jëmale àjjana te nee na ñaari jikko rek mooy li ciy jëriñ nit ki mooy tabe ak jikko ju rafet kon xam naa li ñuy mujj rek ndax mel na ni timis jot na mooy waaw mooy ay bayit yoo xam ne rek xam naa diñu koy jële ci la Matlabul ni foofu liñ fi mën a jàng rekk mooy sëriñ bi kenn ku ne xam ne ne fin ko jaar moom te mu wëlbatiku jéggal ay noonam bu fekkee ne nit kuy fayantoo la moom euh, wala iyaasu waaye gis ngeen li wax ne wa kullu man ahabani aw maala ilay farsuqu hoddan aw maala nee képp koo xam ne bii bëgg nga ma képp koo xam ne bi jàng nga jëm ci man yal na la suñu borom wërsëgale ak njub ak alal mu ne wakku lu man sattama nii aw laama faabu la tawbata laama waaye képp koo xam ne nag danga maa tooñ yal na la suñu borom defal ak tuub ak kon nga xam ne yërmandeem moom day jàpp ne ah képp ku ko bëgg njariñ la waaye ku moom dalay ñaanal suñu borom defal la ak tuub ak xam sëñ bi ba tey mu ne fukkul man asa asannoho bi ya falee xalab xal boxo yaa rabbi ya képp koo xam ni itam xañ na njortoom moo ko nax ba tax mu foog na man mii day keneen laa wala leneen laay woote nga ne maa ngi ñaan suñu boroom mu soppi ab xolam wëlbati ko ba def ci ba mu man maa bëgg kon loolu lépp nag mooy wane ne sëñ Tuubaa moom yéen it kenn safaan ba ñëpp la yéen a jàmm te li wax ne yi bëgg yéen a ñëpp jàmm rek doy na gàllaaj mu ne wal teg fi nii asa jamil alamin wal teg fihim asa yaa rabbi amin mu ne lépp loo xam ne itam ay lor la yuy jege ci ñoom di ñëw ci man yal na ma ko suñu borom fegal waaye itam lépp lor yu jóge ci man di jëm ci ñoom yàlla na ko suñu borom fegal kon loolu lépp nag liñ ci bëgg a jàngale rek moo di fàttali suñ bopp fàttali mbooleem ñi fi toog ñu xam ne yoonu murid daal lépp ay teggin la te ni ko xalil loo daa wax rek dama doon jaay xam-xam ma duma ko dinañ ko wax dama doon jaay ab taar ma duma ko mën nañ ko wax dama doon jaay ab judd ma duma ko mën nañ ko wax waaye dama doon jaay ab yar ma duma ko moom kenn ko wax gën a yaru moom saa yu ko defee lu bari mën nga cee mujj kon loolu daal bokk na ci li nga xam ne bii waxtu wun dajee fii muy kër Serigne Touba gi ñu mën fee gën di fàttalente suñu biir mën fee gën di jàngalante. xam naa kon dañuy daal di eh, jébbal kàddu gi su ko defee xaj na li ci toppaat ci wàllu soññee mu li jëm ci wàllu màggal gi nga xam ne moo nu fi dajale ak li jëm ci wàllu jumaay ji muy ndigal li sëriñ bi joxe woon buñ jullee ba noppi mën koo laajal ak itam li nga suuni